tey ñu ngi réceptionné lot de matériel didactique bi nga xam ne moom la ñu euh, l'honorable le maire Bara Gaye jox au nom du collectif des écoles franco-arabes de yëmbal Sud et Daara euh, jox tey c'est pas une première wax dëgg yàlla bee passé joxoon nañu mais cette fois-ci boo xoolee eh, tey dafa gën a conséquence ndax lan daf ñu jox quatre paquets de l'eau de cahier ak ay boîte de craie ak ay bic ak eh, ay crayon li nga xam ne jox nañu ko au nom du collectif des écoles franco-arabes de de Yeumbeul ak Daara a dëgg yàlla ñun tey dafa mel ni daf ñu gën a sagalaat daf ñu gën a yëgaat am na ñi fi nekk de wax dëgg yàlla waaye la mu def nii kenn mu musu ko def depuis commencement ba tey peut bu njëkk ba danañ ne waxoon ne politique moo tax mais ku ko tollanti tollanti waat wax dëgg yàlla du ñu jàpp ne politique la ku mu neex nañ ne politique la sa affaire la waaye ñun tey collectif bi laa wax ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla mission yi nga xam ne moom la ko population yëmbal si jox yàlla na ko réussir parce que nag nit nag bu la defalee lu baax defal la teraanga bi nga xam ne kenn musu la ko defal war na ko sant war nga ko gërëm ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla. mu mel ne am na ñeen ñoo xamante ne ñoo ëpp moyen ñu fi nekk ndax ñoo ñu ngi def ko moom wi def wala booba léegi moom rek moo nekk nga xamante ne moom mooy appuyer association bi nga xamante ne moo ëmb. Euh, école franco arabe yi nekk biir Yeumbeul Sud. dama ne ñun de la ñu gis lañuy wax lu ñu gis la wax wa ma sahidna illa bi ma alim naa la yàlla waxoon nit ki nag looy seede seedeel la nga xam ma ne dama ne lii ñun musuñu ko am depuis ba ñu créé collective bi ba tey musuñu am lu mel nii moom moo ko def defaat ko defaat ko te sans compter mu ñuy joxaat ay subvention yi nga xam ne oh, pour pour suñuy enseignants ñu mën leen jàppal donc kooku ñun moom la ñu gis gisuñu keneen keneen bu gisee bu defee ñu wax ko. Un petit résumé en français. Donc, vous venez de recevoir un lot de, de, matériel didactique qui a été remis donc, par le maire. Donc, euh, juste un mot après avoir reçu ce, ce kit pour pouvoir donc, euh, un peu, donc, aider donc, ces écoles qui sont un peu dans, dans le besoin. Bien, nous rendons grâce à Dieu d'abord. Et nous prions, nous saluons son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous remercions au fond et très sincèrement au fond de, de notre cœur l'honorable le maire M. Ba, Momodou pour l'acte qu'il vient de poser encore une nouvelle fois. Franchement, ce n'est pas une première fois. Il l'a fait lors des années passées. Il, il, refait encore ce même geste encore. Mais je voudrais dire, cette fois-ci, c'est conséquent par rapport aux années passées. Donc, pour dire encore une fois, c'est un geste que le collectif des écoles franco-arabes de Yumbel Sud magnifie. Nous lui remercions très, très, très sincèrement. Mais ce geste, pratiquement, je peux dire, c'est par le biais de notre ami et frère qui est un directeur d'école, mais aussi qui est un parce que lui aussi, c'est un conseil municipal. Euh, je voudrais nommer M. Omar Samba Dem, qui est euh, euh, euh dans ce, ce, C'est lui, par le biais de lui, hein, qui nous a remis euh, comment dirais ce lot de matériel didactique. Nous lui remercions très, très, très sincèrement au nom du collectif et nous prions pour que Euh, la, la, la mission dont la population lui a convié qu'il puisse réussir sa mission d'une façon, euh, d'une façon très, très, très, très honorable, Inch'Allah. Mais si nous référons aux, aux aides que, que, certaines personnes font, il y a, y, a, y a, une personne qui a, qui a une euh, très bonne portefeuille, il y a le maire, euh, il s'agit de Amadou Kiera. Est-ce que ce, ces personnes vous, vous aident à chaque, chaque, année concernant donc l'ouverture des classes, étant donné qu'il a, qu'il a un portefeuille très, très, très important euh, au niveau de l'État Moi, je ne vais pas citer ici de non je ne vais pas parler à... Moi, je parle de ce que je connais. Ce que je ne connais pas ou ce que euh, je, n'ai pas vu, moi, je ne vais pas me prononcer sur là-dessus. Moi, je me prononce par rapport à l'acte que le maire a fait. Et c'est lui, nous, on est là. Depuis le, Covid qu'on a créé, comment dirais-je, l'association, euh, le collectif de ces de, des écoles francophones. Et on a, non seulement ça, on a constitué cette collectif en GIE. Depuis lors, pratiquement, il le seul. nous, il, est, il est, je pas dire, il est le seul. Mais ce qu'il nous aide, personne ne l'a fait. Ça, même, il faut avoir l'honnêteté, le courage de le dire. Et d'une façon très, très, très, très, très honnête, d'une façon très, très, très, comment dire, raisonnable. Parce que lui, aujourd'hui, je peux dire qu'il fait partie aujourd'hui de la fierté du collectif de Yembel Sud. Pourquoi je le dis Parce que les actes qu'il continue à poser dans, pour ce collectif, personne, je ne dis, les maires sont là. Il y a des honorables, des honorables autorités qui sont là. Ils ne nous jamais, jamais, jamais. Ils savent que notre collectif est là, et bel et bien là. Mais personne n'a daigné faire quelque chose. Peut-être, je peux dire donc, dans ce, ce comment là nous lui euh, nous magnifions ce, cet acte, mais aussi nous lui prions que Dieu puisse, euh, pour, pour qu'il puisse réussir sa mission okay. euh, au lendemain, okay,